xam ni moom nga amal ak jiitu réew mi jamono ji waaw d'abord euh, ginnaaw bu ñu nuyoo askan wi yëpp di nuyu mbokku Sénégal yi ci biir réew mi ak yi ci diaspora bi euh, li ñuy njëkk a def mooy ñaan suñu boroom mu wàcce saafara su faj jàngoro ji wàcceel ñu it ay xéewal am koom mu ñu tàggaleeg jafe-jafe yi ak ñàkk gi wàcce aussi bépp xeetu njariñ buy dàq lor loolu ñun ñépp ñu maase ci ku nekk ci li nga gëm ak li nga yaakaar nga dellu ci ñaan yàlla pour mu musal ñu ci jàngoro bi li nga xam ni lii président de la république def na ko muy woo ñépp askan wi yépp yemul rekk ci leader politique puisque jàngoro bi moom ñépp la concerné xeex bi ñépp la concerné te jàngoro bi daf cee am loo xam ni lii lu lu simple la mooy amuñu vaccin amuñu garabam te it jàngoro bi amul tànk amul laaf nit moo koy jox nit donc sorewante gis ngeen bi ñu bi ñu ñëwee dañoo dàndante puisque loolu la situation bi laaj mesure yi ñuy jël yépp pour fagaru la pour fegu la avant ñuy obligé di faju ndax système de santé bi même bu doon système de santé bu baax ak pays développé bu malade yi baree rek jaaxle daal di tàbbi gis ngeen situation bi am Italie donc ñun ñëpp ñoo war a mobiliser nekk benn jëmm pour xeex jàngoro bi di ñaan yàlla mu musal ñu ci di euh, xalaat bu baax yitam suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci diaspora bi di bëgg ci li nga xam ni président bàyyi na leen xel ci biir programme bi puisque ñoom ñoo daan liggéey di yónnee Sénégal tey ñu nekk ci confinement nekk ci ay jafe-jafe yu metti donc ñoom tamit jar nañoo bàyyi xel ci jumtukaay yi nga xam ni ñoo ngi koy fexe pour xeex euh, jàngoro bi di ñaan ñëpp ñu tënku ci tegtal yi metti na puisque ñun suñu aada ak suñu culture li ñu xam mooy saafoonte dem dikk ku nekk di di di jàppale sa moroom ci jamono bu nekk ñuy jaxasoo di daje wante nag lii suñu boroom moo ko moo ko wàcce ñun ñëpp ñu fexe rek ba topp tegtal yi nga xam ni kër docteur yi joxe joxe nañ ko di euh, gërëm ñëpp di gërëm personnel de santé bi di leen gërëm yéen journalistes yi maa ngi suivre euh, plateau yëpp vraiment ñëpp a mobilisé donc euh, di di bég bu baax ci li nga xam ni moo am ci peuple sénégalais ñëpp bokk ndey bokk baay pour xeex jàngoro bi